salaamaaleykum gars yi da def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube ki leen koy defal di Pape Mor Lo vidéo yi ñu leen koy defal en wolof fi ci canal Galsen Tube vidéo tey maa ngi avant tout na may jéggul vidéo bi démb la dugg parce que vidéo programme wu lundi la mais lundi démb bi dama bëri woon liggéey ba nga xam ni malheureusement vidéo yi mënul woon dugg démb moo tax tey moo mujj ko defal tey euh, vidéo tey mi nag comme ni ñu leen ko waxee ci vidéo yi nga xamante ni top secret lay bokk top secret lundi top secret tey bi nag ñoo ngi ñëw ci juumoo de li nga gis si ci bi loolu la ak li nga gis ci euh, kii bi miniature bi nan ngay def may gagné minimum sept cent cinquante mille par weer. weer nga ngay gagné ci YouTube du dara lu mën a nekk la mais ban liggéey nga war a def pour gagné ko loolu vidéo tey nag ci loolu lay ñëw liggéey boo xam ne bu simple la boo xam ne ñépp ko mën moom lañ leen di wax nan ngay mën a def. ba liggéey boobu nga respecté ko fi ak 1 2 3 4 ba cinq ans nga atteindre minimum minimum minimum di cent cinquante mille par weer léegi lu ñu def nag loolu nañ nekk fii di wax ju bari dañuy dem directement wan leen loolu eh, ban kanaal exactement mooy gagné loolu kanaal boobu lan lay def nan ngeen war a def pour def kanaal bi li muy def teg teg voilà loolu lañ leen di wan ngeen xam ko pour ñu ko bëgg a def kon ñu dem. déjà léegi bu ñëwee directement ci ordinateur bi dangay ngay tàppe fii relaxation pour dormir wala nga tàppe musique pour dormir bii mooy bi gën a simple moo tax moom la ñuy commencer vidéo yi voilà après day fur et à mesure ñuy dem ñu leen di woon yeneen technique yi nga xam ni nan ngeen dañ leen jox ay somme précis nàngam boo ko bëggee jege ne nangam ki ngay def ci nangam temps voilà am loolu leer la nga ñëw nga cliquer recherche mu nit la liste musique boo fàttali ko am na vidéo bu mu mosoon def di leen wan 4000 heures yi soo bëggee nga gaaw ko atteindre ban système ngay def ñëwoon naa ci musique yi wala ni xeetu musique yi boo koy def day tax 4000 heures da nga koy gaaw parce que euh, euh, xeetu vidéo yi parce que vidéo yi dañuy gudd ba pare nit ñi dañ koy cliquer di ko déglu ba mu jeex même image rek moo ci génn mais dañ koy déglu ba mu jeex léegi dañuy ñëw fii par exemple tey voilà mën nañ ñëw fii tam fii mën nañ ñëw fii bu ñu neexee voilà fu ci nekk rek mën nañ ci ñëw voilà mën nañ ñëw fii tam fii buñ neexee voilà fu la si neex mën nga ñëw mën nga ñëw fii voilà léegi boo ñëwee fii chaîne bi moo ngi tudd musique relaxante méditation dormir et berceuse boo gisee lu tax mu tudde ko nii parce que musique yi mu fay dugal xaar ma cliquer musique nga déglu calme boo xam ne lay relaxé loolu la mus temps bi mi ngi diire ji nga 3 heures 9 minutes 54 secondes la vidéo bi diire parce que du loo xam ne looy seetaan la film la wala théâtre la wala dara looy toog la jàpp ko pare di ko déglu voilà audio la dañ ko def ci YouTube comme vidéo mais da koy déglu gis nga même vidéo bii la fi def rek vidéo bi yii daan leen nan ngeen koy amee gis nga bu paree boo demee ba yàgg mu changé waat rek bu demee ba yàgg day na fi def benn bi mun nay changé mun nay répété même vidéo bi li nga benn vidéo bi la répété image bii di ñëw mel ni géej nii ak euh, weer bi nekk si nii boo jàppee vidéo ba fin yi nga moom changé wu ko même vidéo bi la ci def si nga bu ñu avancé ba fii nga gis gis nga même vidéo moo nekk même gis nga même image bi gis nga image xam nga changé wut te li muy way ci nga tam du changé ci canal bi kanal bi ko dugal moo nekk nii am na cinq cent quarante mille abonnés te kanal bi mu ubbeeg léegi cinquant la voilà boo xoolee si nga defal na la fii musique pour dormir et vidéo relaxante avec un écran bleu foncé et des paysages de la mer et de la pleine lune musique pour dormir profondément et son do li nga xam nga loolu si ñëwaale mel ne ndox bi kii mu ngi si defaale na ko si voilà sommeil très profond pour détente et relaxation musique qui fait dormir gis li yëpp mu utiliser si description bi ay mots clés la voilà dafa la defal fii ji nga am musique pour dormir moo clé la mu defal la fii vidéo relaxante moo clé la voilà mu defal la fii ji nga écran bleu mot clé la defal la fii paysage de la mer defal la fii pleine lune mot clé la musique pour dormir mu répété même mot clé d'origine bi voilà euh, defal la profondément defal la sommeil très profonde moo clé la groupe de mot clé wala defal la relaxation ci lépp ay mots clés la jël defal la ko loolu la répété rek pour nga xam ne kuy recherche musique boo xam ne pour dormir la am nga mille chance pour boo recherche ci nga bi ñu ko tàppee rek dafa ñëw presque troisième position am nga mille chance pour boo koy wër lool ci YouTube moom vidéo am day génn parce que titre bi déjà titre chaîne am lool la ci def musique ji nga relaxante la ci def def ci méditation def ci dormir def ci berceuse lii def ko de manière euh, gratuite da ko choisir daf ko réfléchir lu lu xalaat la moom xam na YouTube nu muy fonctionner waaw moo tax YouTube nu muy fonctionner mots clés yi toujours moom ngay utiliser pour référencer say vidéo comme ni ñuy référencer site internet ci Google voilà mu defal la vidéo nga soo bëggee seetaan playlist bi nga cliquer fii nga xam ni musique yu bëri lay nekk bu ñëw wu jeex ba ne ñëwal boppam mu nga fee nekk 24 heures di ko seetaan du jeex loolu taf taf bu ko ay mille personnes defee sa 4000 mille day mat voilà bu ñu bëggee xam lu muy gagné c'est simple fii la ñuy dem ñëw ci. Euh, seen boo bëgg xam ab estimation nag la wala xaaral bu ubbee ko naa leen expliquer da ngay ñëw ci Google nga tàppe social lab waaw mos naa leen ko ci benn vidéo may soog a commencé man leen doy joxe information ci ay chaîne information na doy information yoo xam ni teg teg li mu génnee ngay jàpp que dafa am lu koy analyser dinaa leen ko expliquer da ngay euh, tàppe social lab social lab bu ubbee moo nekk nii nga cliquer léegi social lab ubbeekoo léegi nga ñëw fii ci sa vidéo bii nga defoon voilà nga ñëw ci turu bi nga copier ko nga copier turu bi voilà mi ngi nii nga def clic droit copier nga ñëw social lab <coughs> nga coller ko fi nga def recherche voilà bi nga defee recherche lu gis nga indi na la site yu bari yoo xam dañuy def même chose nga yëpp gis nga ay vidéo yu nekk ci biir kii bi la wala wala canal buy def même chose wala wala vidéo boo xam mi ngi ci biir canal bi voilà noonu la demee léegi bu ñëwee yow fii ngay tàppe voilà parce que bii moo la intéressé parce que mi ngi nii boo xoolee gis nga mi ngi nii logo baa ngi nii mi ngi nii voilà nga ñëw social lab boo ñëwee social lab nga cliquer fii wala nga def select ci channel yaa xam foo ci cliquer mu dem en tout cas nga cliquer voilà boo cliquer léegi ubbil na la chaîne bi ci biir social lab xaaral moon la. bu ñu fii fii turu bi voilà gis nga indil nañu chaîne bi ci biir li nga xam ni mooy YouTube voilà noonu lañu ko indilee social la gis nga neen la koy indi léegi social la bu ko indee dafa am ñun inf lii euh, so site bi dafay jël euh, réseaux sociaux yi loo ci ti dugal moo xam nga dugal euh, kii nu mu nga dugal YouTube wala nga dugal Twitch nga dugal Facebook Instagram Twitter Dailymotion Mixer DLI loo ci mën di dugal dala koy analyser jox la ci information yoo xam ni site moom du ko jox moom mii dalay jox information yooyu voilà information yi mu la bi ñu intéressé fii nag lan la mooy nombre vidéo yi kanaal bi am xool ko baax fii la lay defal nombre vidéo yi up leads waaw mooy vidéo yi ñu am téléchargé nañ ko ci canal bi canal bi 90 vidéo moo ci nekk 90 vidéo fii mu defal la nombre abonné yu mu am am na cinq cent quarante mille abonnés fii mu defal la nombre vue total vidéo mi yëpp biñ canal ubbi ba léegi ñaata vue lañu am cent soixante quatre million quinze mille neuf cent quatre vingt onze moom la am ci ay li nga xam ni mooy ay vie ban dëkk la France la kii ko ubbi français la voilà type la muy def ci musique lay yëngatu kañ lañ ko ubbi voilà lii tam am na importance kañ lañ ko ubbi ñaata vidéo la. ak kañ lañ ko bi moo ci ëpp importance ñu ngi ko bi le 15 juin deux mille 2014 voilà 15 juin 2014 jàpp ko bu baax bu ñu demee ba 15 juin 2000 2019 euh, la am 5 ans 15 juin 2019 bi passé la am 5 ans 15 juin 2020 bii di ñëw lay am 6 ans canal bi te moo ngi def 90 vidéo voilà léegi ñu nga wàcc ci suuf fii lan moo ñu fi intéressé du ay classement yeeg yooyu noonu non fi intéressé lii la lii moo ñu fi intéressé lii muy canal bi day gagné entre mille cinq cent dollars chaque weer mille cinq cent dollars ba vingt quatre mille dollars maanaam dafay gañe sept cent cinquante mille francs CFA ba douze millions diggante boobu lay gagné chaque weer chaque weer canal bi waa ji comme moom li mu ciy gagné dina ci gañee entre. social lam na xamul exact montant bi waa di gañee mais daal nee na la dina gagné diggante lu mu tuuti tuuti waa ji dina gagné mille cinq cent dollars muy sept cent cinquante mille à peu près nga boo convertir CFA <clears throat> maximum dina gagné douze millions vingt quatre mille dollars boo ko convertir CFA cinq cent francs douze millions la douze million francs CFA maximum. léegi lu tax mu xoolal sa yàlla information yi mu lay jox mën nga cee basé wu xam ci lu bëri mais nag doo mais dafa am nu ñu koy analyser mooy social la montant bi moo la jox na waaj dina ko gañ minimum dafay jël dafa basé wu ci chaîne bi su fekkee ñu ngi koy monétiser parce que léegi-léegi mën nga chaîne boo xam ne mën na am view yu bëri am abonné yu bëri am di am ay fekk monétisation am YouTube da ko désactiver parce que dafa am ay problème droit d'auteur yoo xam ne YouTube désactiver monétisation bi mais YouTube tëjul chaîne bi parce que attente yi nekkul attente yoo xam ne war na tëj chaîne bi mais démonétisé na ko chaîne boobu day continuer ci YouTube soo ko dugaloon fii dina nga ne nangam lay gagné noonu fekk chaîne bi gagnétul dara di fonctionner mais YouTube da ko bokk ci programme monétisation parce que daa am ko defee yow nga ne waaji di chaque weer nangam fekk gagnéwul dara loolu tam da ca a bàyyi xel si kaw lii waaj dina ko gagné minimum ci kaw mu nekk chaîne bi mi ngi monétisé parce que social moom xamul mi ngi monétisé wala monétisé wul moom da lay wax selon information yi ma am ci seen chaîne bi muy nombre ab vidéo yi ma ci gis ak nombre vues yu ma ci gis esti estimé naa ni minimum war na gañe nangam maximum war na gañe nangam léegi nag diggante bi ci la waa yi nekk voilà diggante 750 mille ba 12 million ci diggante boobu la waa di gañe par weer voilà en tout cas wàccul fii yéegul fii voilà paasewul 12 million yéesul cent 750 000 loolu c'est clair lu tax parce que boo ñëwee fii nga teg fii defal na la fi point d'interrogation point d'interrogation bi daf la fi jox information boo fi tegee gis nga information bi génn wax na la fii mu ne la euh, estimation yi kat par défaut la si dañ koo def estimation CPC par défaut mu ngi the default estimate CP CP CPM CPM mooy lan mooy coût par mille maanaam li nga xamante ni moom la mille yi di jaar mille mille lan la mille vues voilà range for social blade is 0,25 ji nga lu mu la defal daf la defal estimation bi ñu def su fekkee waa ji mi ngi gañee minimum li gën tuuti te loolu moo li gën tuuti lu ñuy gañee ci YouTube mooy mille vues yu ne mi ngi ciy am 25 centimes waaw cinq cents su dee loolu lay gañee ci YouTube par rapport ak vues yi ñu gis moom la am kon dina gañee cinquante mille par weer su fekkee nag dem na. nekk na ko xam ne atteindre na maximum bi nga xam ni ñuy ëpp lu ñuy gagné loolu la ñuy muy dem na ba 1000 vues yi moom mën na ci am 4 dollars boo xoolee moo nekk ci kaw ne 4 dollars su ma teggee suur bi day dem moo tax ma teg ko bàyyi ko noonu mais boo li si si bande bu ñuul bi ngay liir 0,5 boo xoolee nga def dañ la 4 dollars 4 dollars bi su fekkee moom lay gagné dina gagné 24000 léegi li sûr mooy waa ji chaque weer li muy gagné day nekk entre 750 000. ba 12 millions muy 0,25 par 1000 ba 4 dollars par 1000 su dee ga muy gagné 4 dollars par 1000 dina am 12 millions su dee mi ngi gagné 0,25 dina am 750 mille social information bi la jox information bu lu lu ko lu fiable la wax dafa dafa dafa des dégâts des responsabilités dafa la na minimum bi daal lii la maximum bi lii la waa ji su dee dina minimum bi lii lay gagné su dee dina gagné maximum bi lii lay gagné léegi waa ci diggante bi la nekk jeex na. voilà kon yow bu dee bëggoo juum si ay calcul nga xam ne boo ko doon copier da nga xam exactement boo demee ba egg fi waa ji egg lan ngay gañe dangay jël li gën a tuuti nga xam ni sa calcul yooyu bu faussé tamit lu gën a bëri ngay gañe mais doo lu gën a tuuti parce que jëlee li gën a bëri sa calcul bu dee nga juum ci nga dem amoo résultat lu gën a ngay am mais boo jëlee li gën a tuuti boo juumee lu gën a bëri ngay am day gën a baax si yow voilà kon nga xamee ko noonu social lab information lay jox noonu nga koy analyser voilà c'est très simple dix 90 vidéos la am 540 000 abonnés la am 164 millions 15 991 vues la am pays bi France la musique lay def mi ngi ko ubbi la 15 juin 2014 gis nga mi ngi gagné minimum 750 000 donc gañe par weer voilà kon social la pare nañ foofu information yi leen doon jox pour li leen wax li ñu li li ñu leen di wax ni c'est mën ngeen ko si gagné ñu indi firnde ngeen gis ko voilà loolu loolu pare nañ foofu mu des nag léegi yow nan ngay def bu copier waa ji voilà c'est très simple gis nga musique yu muy dugal yëpp loolu la image ngay jël def ay musique léegi fan nga mën a jëlee image yi gratuitement ak fan nga mën a jëlee euh, euh, premièrement fan nga mën a jëlee musique ba musique bay ndey mbill ki da ngay ñëw si YouTube am na sax site yu ma mën a dugg nga am ko fa gratuitement mais bii gën a simple gën a fiable laa lay wax muy base bi après nag yow vidéo boo ko seetaanee yaay jël sa temps nag def sa ay recherche pour mën a demal sa bopp da ñëw fii ci YouTube nga tàppe bibliothèque ojo YouTube voilà bibliothèque audio YouTube nga tëpp nga tàppe euh, librairie euh, audio YouTube loo tàppe baax na bibliothèque ojo YouTube nga def cliquer recherche dina la indil ojo librairie YouTube waaw mooy YouTube. audio yi nga xam ne ak musique yi nga xam ne da koy disponible gratuitement pour kooku bu nga jël ko def ko say vidéo pour doo am problème droit d'auteur voilà nga cliquer boo cliquer mu indil la ji nga mu demandil la ji nga bibliothèque audio bu YouTube bibliothèque audio bi ñu ngi mu defal la fii musique gratuite waaye nag gratuite waaye na nga koy jàppe ay pincette yu bari loolu da leen trompé tamit YouTube da la ko defal gratuite mais am na fi musique yoo xam ne gratuitement la ko fi YouTube def mais ñi ko moom dañoo def ku ko ku dañoo def ay restriction dañoo am pays yu ñu def ni mën nga ko fa utiliser am pays yoo xam boo ko fa utiliser da nga am problème droit d'auteur loolu tamit foo musique boo tàppeete bala nga koy def sa vidéo nga liir information bi dinaa la ko wan nan nga koy xoole musique gratuite fekkee fii façon musique boo bëgg am na fi voilà da ngay ñëw fii bu dee ci thème bi ngay yëngatu bëgg cee def ay euh, video musicale ci YouTube fii ngay ñëw nga dem genre nga cliquer voilà nga xool ci ban thème nga yëngatu nga cliquer loolu jël ci musique yu mel noonu voilà gis nga mën nga ñëw fii ba léegi ci ban genre tam ba léegi fii genre musical bi fii ban style la nga jël fii fii bu dee par instrument nga choisir guitare wala piano wala dara nga ñëw fii fii bu dee da nga bëgg musique yu gudd wala yu gàtt mën nga ñëw fii voilà fii paternité yi fii la nekk ñu nga paternité noo requise bu dee musique boo xam ni kenn laaj ci dara da ngay télécharger yóbbu fa la neex gratuitement voilà paternité requise voilà mooy boo xamante ne borom dafa bëgg boo ko defee nga ñëpp xam li ci moom nga ko jëlee fii fii ngay cliquer voilà voilà comprendre nga léegi fii boo fi ñëwee mooy effet sonore waaw fii du ay musique mais ay effet la comme ay bruit ndox wala bruit comme ay nit ñuy reetaan wala ay sabu picc yooyu mooy ay effet yoo xam ne dañ nit ñi dañ ko yokk ci ay vidéo bu ko defee mu mel ni ambiance bi bruit boobu ci ambiance ba la nekk fekk yaa ko ci def mi ngi mel nga def foto boo xam ne fooree la nga ñëw fii def am def effet sonore bruit picc buy sap wala dara mu mel ni picc bi ci forêt la nekk comme noonu la voilà nga def effet gis nga indil na la effet yi fii par catégorie ngay choisir effet sonore dafa dem ci alarme wala am ambiance wala loo xam ne affaire animaux yi la wala xar wala xaj buy baw comme yi demee noonu alarme bruitage bureau dessin animé wala ay ndox fuul fuul bi ko buy reetaan wala dara kon horreur impact maison ñu ngi météo outil porte boo defoon fii dala yóbbu ay porte yi yi grincé noonu quoi affaire yi demee noonu voilà nga comprendre nga daal bruitage la quoi voilà léegi fii ngay ñëw nga nga ut fii léegi ñu ñëw musique musique fii musique gratuite bi ñëwee musique gratuite léegi mën na ñëw fii comme musique pour dormir lañ bëgg a bëgg a defar day ñëw fii ñu def par exemple ambiance bande originale dance électro wala ñu def fi ambiance ñu def tàppe ambiance léegi ñu déglu ay yu xaw a calme yu xaw a ànd ak relaxation quoi boo choisir ko def si sa musique léegi fii ci suuf toujours dinañ la fi bindal musique bi vous êtes libre d'utiliser sa morceau dans n'importe laquelle de vos vidéos xam nga lii leer na voilà musique boo déglooti balaa nga koy cliquer fii télécharger xoolal ci suufu vidéo bi dañ la fi defal information suñu la fi defee ne musique bii kat libre na mën nga ko utiliser ci morceau bu la neex ci say vidéo point final xamal ni YouTube moom moom cent pour cent droit moo fi def dafa am nag morceau yoo xam ne YouTube moomu ko dañ ko koy jox mu dugal ko fii mais seeni borom dañuy bëgg boo ko dugalee ñoom après monétisation bi ñoo koy fayee wala seeni borom dugal ko fii ne waaye YouTube maye naa ko mais pour États-Unis kese laa ko maye keneen ku dëkk fanaan bu mu ko dugal bu ko bi ngeen choisir choisirati nekkul bibliothèque audio bi musique libre lay wax rek waa mais dañuy fàtte des fois mais man mi damay dal des ne musique libre mais dafa am yoo xam ne YouTube moo ko moom am YouTube moomul YouTube moom nag moom toujours ci suuf fii dalay defal utiliser ko nu mu la neexee ci say vidéo waaw léegi nga ñëw fii nga def télécharger voilà boo ko télécharger ci nga mu demandé la fan nga koy garder ah, yóbbu ko musique no go track la tudd voilà ñu enregistré ko voilà no go track mp léegi enregistré nañ ko léegi am nañ suñu musique kon pare nañ léegi ci Google ci livre li euh, bibliothèque audio bi pare nañ fi mën nañ ko tëj voilà léegi lan moo ñu desee parce que vidéo bi ñu bëggu copier voilà dañoo bëgg defar comme vidéo comme nii boo xam ne day nekk musique di dem rek ba mat 3 heures de temps voilà léegi am na lu defoon fii loo xam ni écran bleu waaw def vidéo relaxante avec un écran bleu foncé paysage de la mer ba xam loolu bu ñu ko defee dara dina génn wala def recherche pour ñu am pour wan leen rek pour mu gën ñu am lu gën a nduróog liñ bëgg a copier voilà ñu ko defee noonu bañ na wàññi ñu def ñu wàññi relaxation écran bleu la ak socio écran bu la gis nga indil nañu ay image mais ñun vidéo lañ soxla pour def pour pour dugal ko pour muy am comme bële lañ bëgg a ñu def vidéo donte boo def bu la neexee nga def image voilà ñu nga vidéo amul ñu dindi lii def relaxation rek relaxation ji nga am na image fii daal nga yaay daal tànn sa bu la neex la yaay xool daal loo xam ne affaire relaxation la voilà nga dugal ko voilà parce que fii moom dangay ngay am embarras choix quoi voilà tellement vidéo yi fi nekk dañuy bëri te dañuy rafet ba da ngay am problème choix voilà xaar ñu indi bi waaw nekk da ngay clic boo nga seetaan ko la xaaw ñëw bi def ko 640 pour mu bañ a diis trop quoi voilà mais fii ay choisir seulement par exemple soo defee fii mooy gën nekk qualité gën a gën a leer nga def fii mu topp ci 1900 nga def fii HD mu gën a commencé fii noonu la voilà boo gën a tàppe mu gën a feej mais nag loo lu résolution bi gën a mag comme bii ci suuf 3840 sur 2160 bii ji nga 1920 sur 1080 bii 1286 700 résolution bi loo gën a wàcc jëm suuf fii nii résolution bi gën a baax mu gën a leer image bi si gën a retax mais boo koy convertir muy gën a yéex gën a jël temps gën a boo moytu mu planter sa ordinateur parce que bu ordinateur amul doole voilà parce que tamit euh, dafa yéex day jël temps voilà par exemple fii ma def nii temps bi nga xam ne suma ma convertir moom lay jël su ma choisiroon euh, taille bi mën na mu ko jëlal cinq fois plus voilà temps bi nga xam ne moom laay def pour convertir voilà ji nga xam ne bés naa télécharger télécharger gratuitement nga choisir fi ngay def nga cliquer télécharger gis nga muy indi ko xam nga yóbbu ma vidéo ma def ko enregistré ko vidéo voilà enregistré ko vidéo gis nga téléchargé na ko jeex na site bi noonu la c'est très simple amul enregistrement amul dara ñëw nga wër nga im ba vidéo bi nga soxla téléchargé gratuitement voilà bu la neex après nga def crédit mais obligé wuñ la nga def crédit crédit mooy boo ko téléchargé ba pare nga def boo defaree vidéo ba monté ko def ko si nga def vidéo bi maa ngi ko jëlee Pixabay site bi laa ko jëlee nga bind ko ci suuf bi Pixabay laa ko jëlee ki ko dugal moo ngi tudd ci nga xaan mii nga def nga def nii voilà mu ngi nii ji nga def xaan moo ko dugal voilà par exemple mun nga def lien comme user am fii xaan boo ko nga tàppee bi nga copier ko nga copier ko nga dem def ko suuf vidéo bi comme ça ku ko gis su bëggee ay vidéo mun na ñëw fii ci site Pixabay gis ay vidéo yi muy dugal parce que pour reconnaître liggéeyam la quoi loolu tam wàññiwul dara voilà daal bi nga copier ko teg teg mën nga copier titre bu dee amoo inspiration titre boo ci war a def après wala neex mën nga def ay tuuti changement pour ngeen gis nga vidéo baa ngi nii léegi li def mooy ngay tëj YouTube léegi nag wan naa leen affaire bi nu mu demee wan naa leen fi ngay amee <clears throat> vidéo bi wan naa la fi ni ngay def ba am audio bi ngay monter wan naa la canal boo xam ne teg teg rek lay def léegi lu des ñu dem defi montage léegi voilà kii dama ko nëbboon fii tout pendant des années voilà def projet bu bees <coughs> montage application boobu montage boo mënti yoon nag baax na voilà seulement application montage war naa def ay vidéo mais ba léegi commencé ma ko mais ko def incha allah léegi nga ñëw fii nga def ajouter média wala importer média léegi média bi ñu war a importer euh, fan la nekk vidéo la vidéo la maanaam moo nekk nii moon lin bi la voilà voilà importé beneen média muy lan muy suñu son son bi ñu ngi ko dencoon fan musique nan la tuddoonti woon noonu la tuddooti woon noo good right mi ngi nii nga double click ko mu ñëw léegi nga jël vidéo bi teg voilà boo ko tegee timeline bi nga def koo mu sës léegi nga jël audio bi nga teg voilà wàññi fi gis nga audio bi moo ngi nekk à peu près ëpp na 4 minutes mais di nga vidéo bi moo ngi nekk par exemple ay euh, quelques quelques secondes matul sax euh, une minute léegi gis nga xam nga cliquer nga xool. bàyyi tuuti bu ñëwee fi day jeex saboo boo xoolee xaaral ma eggale ko nga xool. nga boo xoolee image génnatul fii fii boo xoolee xoolal léegoo leen xool bu wàccee gis nga yaa ngi gis lune bi nii image bi ak nuage di ko muur di ko muri nii. del xool fii la vidéo bii la te son bi moom jeexul ba sa dafa gudd mais del xool tuuti su su passé vidéo bi rek da ngay fii day écran bu ñuul ko lay def dootu dara dootul génn. romb na ko léegi nan ngay def nag ba image bi tolloog son bi waxuma nga def ko mu nekk trois heures de temps loolu c' est simple bii ngay ñëw nga nga copier ko toujours li nga xam ne moom nga am ci ci ci vidéo day tuuti mais moom ngay copier boo ko copier nga ñëw fii nga def coller. nga sës ko ci bii voilà application montage yëpp parce que lii ñoo ñoom ñëpp ñoo ci bokk voilà kii astafurla logiciel montage bokk voilà sa application téléphone la léegi xam nga collé naa ñett do xam nga collé benn bar benn day yéex léegi damay ñëw ma sélectionné ñett yëpp nga def copier voilà nga def collé collé naa ñett yi nga léegi jeex na mat na léegi soo bu naa ko mu gën suufe tuuti voilà léegi mën naa coller benn jël benn copier pégar voilà voilà léegi gis nga nga fi la yem léegi del xool bii bu jeexee tam di nga ligne bi du dem day kon ne nekk fi di répété gis nga nii la koy jàppoo jeex na c'est très simple moom boo xoolee bindu si dara dara dara dara mais bu la neexee yow mun nga fi yokk texte voilà mais ñu su bëri bu defee musique yu mel nii relaxation li gën mooy nga bañ fi def dara nga am ni ko comme nit ñi tooguñu di ko seetaan dañ koy déglu nga bañ fi def dara voilà mais bu la neex te mën nga fi def texte boo xam ne pour couverture bi la waa après nga wutal ko li nga xam ni mooy euh, miniature bu bu rafet voilà bu la neex am na ñoo xam ko def miniature voilà sànq demaat ci kii bi internet bi voilà détente relaxation pause gis nga defuñu si dara voilà gis nga ñu su bëri noonu la ci soo musique bi duñ ci def dara duñ ci def benn bind bu la neexee moo tax mën nga ci def benn mën nga ci bañ def bind voilà ñu bëri duñ ci def bind mais seulement dinañ fexe ba def ci image boo xam ne image bi daanaka day wax image boo xoolee rek da ngay xam ni li affaire détente la parce que image bi day rafet voilà gis nga gis nga gis nga toujours noonu la mën nga mën nga dem boo paree tam nga dem jëli photo boo xam ni moo gën par exemple xam nga lii bii dafa simple moo nekk nii boo xoolee borom def si dara moom nii rek la ko bàyyi voilà mais bu dee nag yow vidéo bi nga def musique bi mi ngi dem neex nag yi vidéo bi nga def tam baax na mais mën nga dem te photo def ko comme miniature léegi c'est très simple lépp ngay boole nga copier yëpp nga def clic droit nga def copier nga sélectionné nga def clic droit nga def copier nga ñëw fii nga def coller boo defee nga xëcc ko mu sës mu sës voilà comprendre nga voilà léegi fu musique bu jeexee day commencé waat voilà léegi nga defaan nii nga coller voilà nga xëcc mu sës léegi nga wàññi timeline bi nga ñëwaat fii nga coller voilà nga xëcc ko mu sës voilà nga ñëw fii wàññiwaat mooy ban mu joxaat la fi espace wanewaat voilà ñëwaat fii wàññi voilà nga ñëwaat fii kole voilà ñëwaat fii wàññi mun a neexee mën nga ñëw ci baar bi ci suuf waaye ku nekk ak sa logiciel nga nañ koy utiliser voilà léegi may collé par benn léegi damay ñëw ma sélectionné yëpp voilà noonu ma ñëw ma sélectionné yëpp comme ça mu mu nga xam ni car vingt mille yi yëpp lay dupliquer waat par deux copier ñun quarante et quelques minutes voilà idée bi daal nii la comprendre nga ko j'espère voilà nga copier waat fii copier coller voilà nga déjà ji ñoo ngi une et quelques minutes voilà exactement ñoo ngi jëng une heure 43 minutes voilà 50 et quelques secondes mais pour wan la rek nii rek nga koy def di répéter ba temps bi nga bëgg mun nga ko def ay vidéo une heure mun nga def ay vidéo deux heures trois heures yaa neex nga koy def voilà ñi nga même image bi li tew mooy nekk te tew jeex na ni lañ koy defee c'est très simple léegi soo paree li ngay def jeex na amul leneen soo paree fii ngay ñëw nga def conversion voilà nga choisir ban format nga bëgg euh, bii lañ koy def 400 pour mu gaaw voilà ñëwul na la indil euh, ban titre ngay def titre bi ñu jëloon fële gis nga moom lañ def gis nga mi ngi nii jeex na léegi vidéo bi moo ngi convertir voilà léegi nag xam nga convertion bi day jël temps léegi dama koy pause buñ ko moo ko convertir ba mu jeex dama koy pause bu jeexee léegi dina ñëw woon leen ni jeex na après won leen nag dugal ko ci YouTube ngeen gis ba xoolee vidéo bi convertir na ba pare léegi ñu def terminé léegi mën nañoo tëj euh, logiciel bi hmm, mën nañoo garder projet bi tuddee ko tuddee ko musique libre léegi dañuy dem euh, YouTube voilà mën nañ dem YouTube télécharger ko ci benn canal exemple rek pour après ngeen xam léegi ñu ngi koy dugal euh, YouTube bu jeexee dina leen ñëwaat wan leen aspect bi nan la mel waa gars bi téléchargement bi pare na léegi ñu dem xooli ko en ligne voilà ñëw seetaan ko ba xam lu muy joxe lu ñu koy defaree yaa ngi am ci nga une heure 43 minutes voilà booy def chaque jour lii pour nga defar ko temps bi mu ma jëlal pour ma defar ko ci nga matul sax une heure de temps chaque jour booy def nga jël sa benn une heure temps defar benn vidéo ubbi sa canal boo xam ne mel nii la chaque jour nga jël sa benn une heure temps dugal sa vidéo boo demee fii ak 2 ans 3 ans ba ay 4 ans di nga commencé gagné 750 000 ci YouTube minimum ci YouTube te avantage bi amaat ci façon vidéo yi mooy façon vidéo yi. nekkul vidéo yoo xam ne dafay ànd ak dafay dafay xew di xew yi maanaam exemple nekkul canal bam da nga koy ubbi rek il faut nga nekk ci toujours di defar di expliquer di dugal ay vidéo wala dugal ay vidéo pour nit ñi di la seetaan boo bàyyee ñu bàyyi déedéet kii mun nga dugal say vidéo par exemple canal ma leen noon sànq moom 90 vidéo ñu ngi ko defal 2014 borom fu mu nekk ni mën na ci ba ci am soxla dem concentré wu ci beneen canal bàyyi fi canal fii ak 10 ans fii ak 20 ans fii ak YouTube mi ngi existé nii di monétiser canal bi nit ñi dañ koy seetaan parce que toujours nit ñi dañuy soxla ay déglu loo xam ne dafa relaxant wala affaire détente nekkul loo xam ni buzz la day xew di xewi mais loo xam ne la à vie la nit ñi dañuy continuer di ko soxla moo de vidéo bi mun nga ba ñetti defar mise à jour day continuer dem ay abonné day continuer dem ay vues day continuer di générer fekk yaa ngi si beneen liggéey di ko def loolu imaginel nga dem ba am ci 4 5 6 wala 10 canal yoo xam ne moom noonu la mel canal bu nekk lu mu bon bon nga ci am 300 400 wala 500 mille imaginel 750 mille yooyu waa ji ans yi bu dee defar na fi 5 ba 10 canal ci 4 ans yi 10 canal te mën te lu yomb la mën nga def 10 canal canal bu ne nga def ci benn vidéo parce que vidéo bi temps bi ma jëlal mën naa si defar 10 par jour ko YouTube am na ñoo xam li ñu ciy gagné bu ñu la ko waxee yow da nga loolu c'est impossible wala ay stratégie la rek voilà lii ngay def ba mu dem wala nga ubbi 10 canal yu bokkul canal bu nekk chaque jour liggéey la nag il faut nga jël ko def ko sérieusement parce que business la loo xam da nga ciy gagné 750 000 par weer xam nga ay caaxaan liggéey la waaw affaire yi amul dara looy gagné tamit te doo doo ci sonn doo ci ñàkk doo perte sa temps doo doo ci doo ci concentré wu bay sa ndigali di métti voilà noonu la parce que tamit euh, ku bëgg dara il faut nga def dara voilà noonu la dala koy jaral nga xam ne business la woon boo ci concentré wu fii ak 2 3 4 ans li lay indil xéewal lay nekk nga concentré wu ci léegi commencé ubbi lu mu mën man cinq canal chaque jour nga defar cinq vidéo canal bi da nga dugal ci benn vidéo voilà boo ko jàppoo noonu li wax di nga ko gis incha allahu bi kon vidéo tey bi foofu la ñu yem foofu ñu leen di jox daje ba vidéo bii di ñëw incha allah vidéo euh, top secret lundi bii di ñëw dañ la waxaat beneen style vidéo boo xam ne comme du nekk teg teg ci wàllu musique parce que tey dañoo commencé bii mais chaque jour ci benn domaine la ñuy jël wan leen si koo xam da ciy def lu simple loo xam ne moom du feeñ du génn te mi ngi ciy xaalis bëri voilà preuve à l'appui kon maa ngi leen sant leen gërëm ci seetaan bi di leen jox daje ba vidéo lundi bii di ñëw ci vidéo bi nga xamante ni mooy top secret top secret par lundi lañ koy def mooy comme façon vidéo yi par lundi lañ koy def incha allah ma leen sant leen gërëm ci seetaan bi ngeen doon seetaan di la wax nag loo fekkee yow yaa ngoon ci xamoo loo waroon def yaa ngi ma doon suivre peut-être mais daal chaque jour ngay hésité naan man daal yaa bu peut-être bëggoo loo xam da ngay génn wala bëggoo daal amoon nga jafe-jafe daal léegi indil naa la teg vidéo teg teg boo xam ne mën nga ñëpp ko mën def lii moom ñëpp ko mën def lépp ko mën def avec le long terme ngay gagné jeex na tàkk voilà avec le long terme da ngay gagné c'est sûr te lii ñëpp ko mën kon bul xaare te amatoo lay pour xaar lancé wul commencé voilà kon ba vi lundi bi ñëw ci vidéo top secret leen sant leen gërëm seetaan bi di la wax nag eh, bu fekkee abonné ko ci kanaal bi nga abonné mooy bouton bu rouge bi nekk ci eh, ci vidéo bi bouton s'abonner bi ngay gis nii boo ci cliquer di nga abonné eh, deuxièmement tam groupe Facebook bi lien bi nan mi ngi ci suuf vidéo bi boo ci cliquer nga dem bokk ci groupe bi pour partage affaire abonement la ak entre aide nit ñi tam vidéo yi ñuy def ci seen kanaal yi ñu koy mën a partager foofu ci groupe bi ñeneen di ko seetaan kon maa ngi leen di jox daje ba lundi bii di ñëw ci beneen vidéo top secret incha allah rabbi jërë ngeen def ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné koo ci canal bi. boo cliqué ci fii ci bouton bi gère wi boo ci cliqué rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag cliqué vidéo bii nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom ay mbir a ngi ci ay tips ak ay secret.